nu mu demee bon Baye Ablaye Baye Ablaye Wade moom Baye Ablaye Wade moom sama baay la <laughs> Baye Ablaye Wade moom sama baay la comme li may wax rek man lu baax laa a wax ci moom wala ma noppi ci mbiram da ngeen ma a dégg ma benn kàddu ko jëmee poor boobu moom sama baay la loolu laa jàpp te tamit <clears throat> euh, suñu source d'inspiration la mm-hmm. te loolu dañ koy revendiquer ñun bañ nañ ko ba bi ñuy créer suñu parti Euh, dañu reprendre bleu jaune couleur couleur couleur PDS mhm. bon mais nag suñu bleu moo gën a saf bleu PDS <laughs> ah, bleu bleu la waaw waaw waaw mais suñu bleu bi dañ ko cuubaat mhm. ah day yem bleu bi dañ ko cuubaat def ci suñu legetu mboq loolu mooy suñu <coughs> suñu suñu mandarga alors donc ñun ñun ñun ñun ñun ci inspiration Ablaye Wade ci ndongo ci wàllu politique ndongoy Ablaye Wade lañu loolu dañ ko yàgg gëm moo tax d'ailleurs ànd gi ñu ànd ak Macky Sall tam roy Ablaye Wade la parce que président Macky Abdoulaye am na fi Abdou Diouf ay ñaari yoon. donc loolu yàqul dara si mbirum mbirum mbirum politique bon maintenant euh, Karim bon euh, sama frair la. parce bon, que ñoo bokk Abdoulaye Wade mais euh, loolu rek la ñu seq sequñu leneen. Euh, bala ñoo daaneel ci wàllu par exemple.